أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والجاه السلام عليكم ورحمة الله mbokki jullit yi mbokki daayira Sifaa Sudur ginnaaw bu nu sante buur bi subhaanahu wa taala jullit ci yonenteem bi Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di santa Sëriñ Tuuba Cheikh Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul sunu yaakaar yi tey ak ëllëg ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di bàllu ñëpp ak tey baal ñëpp yan lañu yàlla boole jéggal seen mbokkum taalibi Modou Thiaré Sifaa Sudur fii ci Touba Asalem di fas yéene delsiwaat ak yéen ci seen jotaay bi ñu tuddee ahlu xasida mu baaxoo am fii ci groupe whatsapp bu daayira Safaa Sudur altine bi jot tey nag ñu fas yéene andi lenn ci taxawaayu xasida yi lenn ci ngëneel yi nga xam ne suñ boroom subhanahu wa taala defal na ko sëriñ bi ci xasida yi fuñ koy tàmbalee mooy nga xam ne sëriñ Tuuba mooy abdullahi wa rasulihi jaamub yàlla suñ boroom ak liggéeykatub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax daal na wax ne sama daraja mooy nekk gi nekk jaamub yàlla su boroom ak liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam darajati kawniya abdullahi xadimu abdihi bni abdullahi jaam nag dafa am lu ko war muy lan muy jaamu moo tax sëriñ bi wax ne utiyon ilaahi utiyon ilaahi naka noonu alxadim tamit dafa am loo xam ne moo ko war muy lan alxidma muy liggéey am ne utiyon ilaahi lam ci teg xaadiman lil wasilati di liggéeyal wasilaam bi nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa su ko defee it ku ne xam na ne jaamu yàlla suñ boroom dafa am ay xeeti jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam ña ko mës di liggéeyal li nga xam ne dañ koy liggéeyal bari nañu lool waaye lenn lu ci nekk rek danay ñëw ci fi nga xam ne foofu la ci Serigne Touba taxawe woon foofu la ci Serigne Touba taxawe woon ba ñu xam ne kenn du Serigne Touba soo waxee léegi rek nga xam ne jaam bu nekk dafa am loo xam ne moo la war muy jaamu yàlla suñu waaye soo nee alxadim nga itam am na loo xam ne mu ngi lay xaar muy xidma ca kan ko nekkal moo tax ba mu ne utiyon ilaahi xaadiman lil wasilati muhammadin il kaafil baliyaat di dar yi topp yàlla nag mooy jaamu yàlla nekk ci li yàlla bëgg li yàlla santaane nga di ca góorgóorlu sa kemtalaay kàttan ba lépp ci lum digle nga nekk ca te moytu lépp lu muy tere waaye jaamu yàlla dafa am ay xeeti jaamu yàlla am na lu toll ci ñetti xeeti jaamu yàlla yoo xam ne benn bopp teg sa moroom soo demee ci alquran suñu boroom day wax ne wa min annaasi man yacbudu llaha ala xarfi fa in asaabahu xayrun itma'anna bihi wa in asaabathu fitnatun inqalaba am na ci nit ñi ñoo xam ne jaamu gu ñu jaamu seen boroom defuñu ko rek ngir jëfe santaane suñu borom waaye dañ koy def ngir intérêt ngir seen intérêt bopp dañu jaamu yàlla ngir <clears throat> bëgg lii kon am na koo xam ne day jaamu suñu boroom ngir saa bu xëyee ay mbiram di dox am koo xam ne day jaamu suñu borom ngir xam ne suñu borom kat moo ko bind digal ko mu jaamu ko Sëñ Tuubaa nag dafa jël xeeti jaamu yàlla bi gën moom la doon def muy jaamu sa ngir jëmmam ji rekk tax di ko màggal di ko sellal te xam ne loolu képp mooy li war loolu mooy jaamu yàlla bi gën di ko jaamu te xam ne moo la bind jaamu ko ak màggal ko rek rek moo war gis nga moo tax mu ne walam azal abuduhu tanzima nekkul woon di ko jaamu ngir bëgg aljan aljanna nekkul woon di jaamu suñ boroom ngir ragal safara waaye def ko doon jaamu ngir màggal jëmmam ji tedd ji moom suñ boroom subhanahu wa taala kon sëñ bi foofu la taxawe woon ci xeeti jaamu yàlla bi nga xam ne euh, moom la doon def kon nga gis ne ñi mu doon jaamu yàlla wute na ak lu lu nit ñi di jaamu yàlla ndax lu bari ci nit ñi dañu jaamu yàlla ngir wa mina naas man ya'budullaha ala harfin ñi di jaamu yàlla ngir bëgg euh, dem ëllëg aljanna yal nañ yàlla di jaamu yàlla ngir mucc ci safara ñii di jaamu yàlla ngir lii moom nag foofu la taxee woon liggéey boobu itam nga xam ne moom la doon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te lépp ñi ko doon defee ci xasida yi liggéey boobu it sëriñ bi ci boppam def cee am jagleel boppam ndax li ma ko waxee ci njëlbeen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ba jamono ji ñu toll am na ñu koy liggéeyal waaye sëriñ bi def ci amoon jagle boo xam ne kenn amu ko woon ci moom daan na wax ne sakartuhu is xasani bi xidmatil xisani za xidmatin fil alami loxo waxakka walami kon liggéey boobu jagle la boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko ko jagle loolu mel ni liñ ko doon xaaree moom Serigne Touba ndax wax na ne raama rasulullahi min ilahi kawni xadimahu wa abdullahi rasulullahi sallallahu alayhi moo sàkku ci sama borom ngir ma nekk ab liggéeykatam dako liggeyal ci diine ko liggeyal ci alquran karim ak sunna kon loolu itam day lu rëy rëy lo xamne ne yonent bi ci bopam moko sakku won ci sun borom ba nga xamantene ni nii yonent bi laaj na ci ndigal sun borom bo sun borom jox ko ci ndigal yonent bi nak daal di joxat seigne touba ndigal ngir mu ñew wotu ko lëggéeyal ko ci diina ji te mooy yeesalaat ko yeesalaat diina ji moo tax sëñ bu wax ne karramani xayrul baraya biktu bi bi xidmati yi wala fii xidmati yi wallahu yoxli kutubi ngeen di mbindeef sallallahu alayhi wa sallam mooma teral ci lan biktu bi jox ko ndigal ne ko uktub bindal lëggéeyal ma kon nga gis ne seigne touba liggey bi moy mbind ni ci mbind la ko doon defee mu ne wallaahu kutu bi yàlla sun borom nak ci bopam moy yëkkati sama mbind moy yëkkati sama xasida nga xamne kitabati lil arsi wal kursi rafaaha man jada bil kursi yi borom dafa yëkkati xasida ba ñu dem ba egg ci arasa ak kursi yi itam benen dimension la bo xamne mbind mudul alquranul karim mbindam sëñ Tuubaa rek lañ gis mu nekk mbind moo xam ne dafa yëkkati ku nekk ba ca arsh ak kursi yu loolu nekk na loo xam ne day wone màggaayu xasida البلا والغمة دنيا وأخرى عن جميع الأمة وجلوا يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجلوا يا كريم خير الذكر في أبدا لي وخير الشكر وجلوا يا شكور شكرا خائفا عندك لي وكفل القوائق يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني وجل عندك وعند المستوى صل عليه بالسلام والاستغاث مخلصا من جمله نكون كو خامني وجانبا للفوز بالبروم سبحان سيرين توبا مرسل لا وون مرسل كوني يوني moo ko waxal boppam bind ko mu leer nañ dafa wax ne yow sunu boroom yow kat danga maa yónni danga maa yónni ngir sa téere bii di alquraanul karim ngir mu leeral ko yónni ngir ma leeral xadiisu yonente bi sallallahu ma ngir ma leeral li nga xam ne moom la borom ñeenti ngir yooyu andi woon muy imaam Malik Ahmad ibnu Hanbal Abu Hanifa ak imaam Saafi nga xam ne Sëriñ Tuubaa def leen di faral di tudd lu ci ay xasaayidam boo demee ci sindiidi bi malikin zil mazaya saafi'i abi hanifatin ahmadal mahmuda yallaahu wala nga hanifatan kon gis nga andi na foofu loolu mooy li Sëriñ Tuubaa di wax ne أرسلتني أرسلتني لذكرك الحكيم ولحديث المصطفى الكريم وللمسائخ وللأئمة وذاك غاية المنى والرحمة doon def ko yónni woon ngir mu alquran ak hadis mu leeral ko ak ci mboolem sëriñ si sëriñ si mooy borom ma andi woon ak ci mboolem xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam أبين الكتاب إن ساء المعين أحسن تبيين يزحزح لهم mu ne dina leeral téere bii di alquraanul karim moom Serigne Touba ndax dafa bokkoon ci lu taxoon suñu borom yabal ko ci kaw suuf mooy mu mu leeral ko naka noonu it sunna si yonente bi alayhi wa sallam noonu la ko ci waxe nazafatuhu kulli min allawi taharat wa sunnatahu inshaa rabbi ubayinu wa sunnatahu inshaa rabbi ubayinu kon sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam gis na Sëriñ Tuubaa mu ne ci kàttan bu soobee yàlla insha allahu taala dana ko leeral liggéey na ci alquraanul karim ak sunna loo xam ne mbindeef mosu koo liggéey ba tax na mu wax ne farraliyal kitaaba wal islaama wa ummatin maahi fala ulaama mu ne farra farra mooy lan daw na farraliyal kitaaba wal islaama mu ne daw na jëm ci man sëriñ Tuubaa wala daw na ñëw ci man loolu lan la alkitaab téere bii di alquraanul karim wal islaam ak lislaam wa ummatin maahi ak xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man lépp daw na jëm wut si ma dëgg man si ma man Sëriñ Tuubaa fala ulaamu mu ne kenn dee suma yedd suma yedd kon liggéey bu mu liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi nga xam ne na mu waxe woon ne man zannahu man zanna annahu yakunu abada yurdihi billazi ka xidmati bada na faytu zannahu bi anil xadim bi ma wana am misli kullu xadim képp koo xamante ne njort nga ne mas ngaa liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi liggéey bu liggéey moo ko liggéeyal man sa njortu kat nax na la waaye man xaadimu rasul maa ko liggéeyal liggéey boo xam ne wana an mislihi kullu xadim la wax ñaa ko jiitu woon moom sëñ tubaa kenn mosu koo liggéeyal liggéey bu mel noonu te ñamu jamonante woon itam kenn mosu koo liggéeyal te ñi nga xam ne ñooy ñëwaat ci ginnaaw kenn dootu ko ci liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam liggéey bu kenn liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyal loolu ba tax na ba mu ne faral yal kitaaba wal islaama wa ummatillahi fala ulaamu alquranu karim xadisu yonente bi sallallahu alayhi ak l'islam ak mboolem xeet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp daaw nañu jëm si ci man Sëriñ Tuubaa sëriñ bi nag suñu buggee xam taxawaayu xasida yi dañuy delluwaat ci waxi sëñ Touba ndax dama ko tàmbalee ba mu waxee ne yaqulu abdullahi wa ahmadu xadimu man sumaatuhu muhammadu wax ne utiyon ilahi xaadiman lil wasilati muhammadinil kaafi baliyaati bi dar i day topp suñu boroom di ko jaamu di liggéeyal yonente bi sallallahu wa sallam noonu ko nekkee nekkee abdullahi wa xadimu rasulihi euh, noonu la waxee ne xasaa idam yi itam dañuy jaamu yàlla suñu boroom te dañuy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne xasaa كما ينقسد تعبد ربي الشكور وأنها تخدم عبده الشكور kon da ngay gis ne fofu xasida yi dañ fee taxaw yu jëmmi sëriñ bi muy lan di jaamu yàlla di liggéeyalante bi te wolof njaay nag dafay wax lu am solo dafa wax lu am solo muy lan eh, wolof day wax ne ginaar ak ay cuucam lépp borom ginaar yi ñoo ko moom ki nga xam ne kon dafay dem ci ki wecceeku xasida mu wecceeku fi ab xasaayidam donte benn la mu ñëw denc ko la ko tàmbalee ci keroog ba nga wecci ko xasida bi ba keroog ba bu sax di taxaw wala ba këroog ba xasida gi di taxali ko yow lépp lu xasida bi jaamooti yàlla lépp lu liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu dañ koy jël defal la ko ci say téere jëf saa ba wéccee ko xasida teg ko ne donte jàngoo ko xamal ne xasida googu mu ngi jaamu yàlla mi ngi liggéeyal yonente bi waaye lépp lu mu jaamu yàlla lépp lu mu liggéeyal yonente bi yaay boroom yaa ko moom kon wax mën a jàng xasida waaye ndikete weccee ko xasida lu am solo la sëriñ bi it dafa xamle woon ne dafa waxoon ne li ya'lam kullu man ta'allaqa bi annani tawajjahtu ila allah sëriñ bi radiyallahu anhu dafa waxoon ci khasida bi nuuru kauni ni waliyahab kauni ka kulli mursali mursali hurufi ka kafi aadi rusuli lol moy lan yow sunu borom ma ngi lay ñaan man serigne touba ngadef ma ma taxaw taxawaayu bépp yonente boo ma sa yónni ma taxaw taxawaay boobu ci jaam yi day dellusiwaat rek ca lu mu waxoon ne arsaltani mu ne wajal xuruufi rusuli da nga def sama araf yi sama lettre yi sama xasida yi kafian li rusuli ñu mel ni ñu toll ni jëfi yonente yi rusul nag la wax jamono la bàyyiwul kenn la ko tàmbali ci yonte yàlla aadama ba ci yonte yàlla seydina muhammad sallallahu alayhi wa xasida yi taxaw nañ ñoom ñëpp seen taxawaayu jëf yooyu kon kay xanaa mbokk yi foofu la ngëneel mën a waaye ci xasida yi ci génn xasida gi di nuuru daara yi mu waxaat foofu ne wajaal kitaabati ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل قال loolu يا suñu borom maa ngi lay من man nga defal ma sama bind yi sama xasida yi ñoom seen jëmmi bopp mu taxaw taxawaayu mboolem yonent yi comme ni nga ma ko kon nga xam ne ndikki xasida yi dem nañu ba taxaw taxawaayu yonente yi ci mbiri jaam yi di gindi nit ñi di leen teg ci yoon siraatul mustaqim yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu dafa wax ci alquran yi wala suñu boroom dafa wax jaam yi ci alquran yi wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee de di ngeen gindeeku dana leen teg ci yoon Sëriñ Tuubaa it li lay xamal ne dafa ñëwoon taxaw taxawaayu mursal mooy dafa wax ne xadaaniya rahimu laa adillu wa an sabilillahi laa udallu suñu borom moo ma gindi man Sëriñ Tuubaa ba du ma waaye képp ku ma topp itam du ma ci yoonu yàlla suñu borom waaye noonu la waxee ne wajaxal ni daal di wax xilaani haadiya hidaayatan lil xoqalaa ibaadiya ñaan foofu suñu borom ngir xasida yi di def di gindi nit ñi di leen won yoonu siraatal mustaqim kon xasida soo koy jàng def lay teg yoonu siraatal mustaqim jubal la ba nga ne xoj mel na nga xam ne noonu la suñu borom subhaanahu wa bëgg ak jaamam kon war nañ góorgóorlu bu baax يعني فسدت قيل واهب وجله حروفة مقدمة مقبولة بركة معظمة وجل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير اجل حروف لوجهك الكريم أكبر رضوانك بشرا لا تريب وجل حروف معجزات أخرت وخير خيرات لديك دخلت ba tey ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne xasida yi taxaw nañ ko euh, suñ demee ci muxaddamatul kubra nga xam ne xasida la gu fees dell ak julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam soo ko demee da ngay gis ne façon xeeti julli ci yonte bu ne rek suñ tubaa def na ko am na julli goo xam ne bu mu ci jullee ba noppi dafa wax ne waj'alni bi jaahihi rashidan wa murshidan suñu borom maa ngi lay ñaan ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man Serigne Touba nga def ma ma nekk rachid ak murshid rachid mooy lan euh, mooy jub xocc tege ca yoon wa su ko defee nag ngay soog a nekk mursid di jubal di teg nit ñi ci yoonu yàlla siraatal ci yoonu yàlla suñu borom bi subhaanahu nga xam ne muy siraatal mustaqim waaye soo demee ci xasida mafatihul bisri defe naa ci lay waxee ne wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida kon lam doon ñaan la fële boppam fii tam mi ngi ñaan suñu borom ngir xasida yi taxaw taxawaay yooyu kon ni Sëriñ Tuubaa nekke woon rachid nekke woon ko murshid noonu la xasida yi nekkee rachid nekkee ko murshid Sëriñ Tuubaa na mu nekkee woon abdullahi wa xadimu rasulihi noonu la xasaa idam yi nekkee abdullahi wa xadimu rasulihi mu ñaan ko suñu borom suñu borom ko ko lépp ngir ngir yërmande jaam ñi

kon nag mbokk yi su ngeen gisee taxawaay yooyu yëpp benn bu ci nekk rek Sëriñ Tuubaa ñaan suñu borom ngir taxawee ko te buñ gëstoo ci mbindam ñu gis koo xam ne dafay ñaan suñu borom tamit ngir mbindam taxawal taxaw taxawaay yooyu kon liñ ciy jàngee mooy mbindam Sëriñ Tuubaa mbind mu rëy la ci suñu borom subhaanahu wa taala ba tey am na foo xam ne sëriñ bi dafaa xam ne ne suñu borom kat. dogal na ne moom Sëriñ Tuubaa bokkoon na ci waa ahlu badrin ya waa ahlu badrin ya nga xamante ne ñoo ñoo defoon xare badar àndoon ak yonent bi wa sallam ci xare bu métti boobu xam ne weeru koor la woon Sëriñ Tuubaa nee na suñu borom bi dogal na ne seede na ne man kenn laa ci woon man Sëriñ Tuubaa shahida lillaahu شهد لله بأني واحد من أهل بدر خاف مني جاهل xam nga foo xam dafa wax ne shahida lillahu bi anni waahidu min ahli badrin maa nahaani jaahidu waaye tamit da nga xamante ne nii mi ngi dem di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam suñu borom defal ma ko teraanga boo xamante ni def eh, ko booleeg waa ahlu badri yi ñu ànd ak moom ci liggéey bi moom lay junj ci xasida ak ahlu badri muy xasida nga xamante ne da koo bind doon xare badar soo demee ci asmaa ahlu badri ca fekk seen tur te sooy jàng xasida ak asmaa ahlu badri na nga gisee suñ tugaa muy tuddee gaa yu baax yooyu kenn ku nekk nu mu lay tuddee ak xam le sa taxawaay loolu ku ca bokkul woon mënu ko ci xasida googu la Sëñ Tuubaa wax ne akramani llaahu bi kawni himmahay muy wax waa ahli badrin di wax ne suñu borom teral na nekk gi ñu nekk waa ahli badrin di ci tukki moom la doon junj itam ci xas gi asiru boo dee mu ne asiru ma al abrari xiina asiru wa zanna al ida anni hunaka asiru al abraar yooyu ñooy waa ahli badrin te Sëñ Tuubaa muy bind xasida ak asiru boobu maanaam demagul ci tukki bi koo xam ne dara xewagul tukki amagul dem géej gi amagul nga bind xasida xam ne ci programme géej gi ak na muy demee lépp sëñ bi loolu dara gënu koo nekk kéemaan moo tax moo xam ne kulli yëpp yi moo jisaatu taa xarat sama lépp man sëñ Tuubaa kéemaan la sëñ Tuubaa ba mu nag moo ñu fàggul xasida yi wax ci lu rëy rëy nag loo xam ne waxuma la képp kuy murid waaye képp kuy te saat sàkku ngërëmal suñu borom soo ko wutee ci xasida tey seetlee suñu borom mën na la في أبد وقف فما أبيت أني دواما وقني الحساب يا من محوت الموت والحجاب ولأبي الهيثم سر يا ربي خير ردا وتقبل تسبي ولأبي الهيثم سر يا ربي waaw audio boobu daa mel ni am na li mu ci bëggoon dool di dafa egg ndax Sëñ Tuubaa bu ne shahida lillahu bi anni waaxidu min ahli badrin xaaf min ni jaahidu am na keneen koo xam ne dafa wax ne duma kitaabati li yawmi badri jaa'ilu ahlihi al-'izaamu qadri loolu mooy lan mooy xasaayidam yi suñ boroom subhaanahu wa taala def na ko mu taxaw taxawaayu xare badar gaa yi doon xare badar mu ngi xasida yi taxaw noonu taxawaayu weesu xare badar dumma kitaabati li yawmi badri madal yasiral masuuna man jaan xatti ya misla yawmi badrin fan jaan Ya, wax ne wajahal makatibi taquma abada maxa mahajjin wa jihadin lil huda yu sun borom maa ngi lay ñaan nga defal ma sama mbind mii di sama xasida yi ñu taxaw taxawaayu aj taxaw taxawaayu jihad ak di lislaam yi wajhalhu moo ne yan anil mu rabbi sun borom na nga def xasida yi mu nekk dana la doy walis am mu rabbi walis ngay am sëriñ walis ngay am sëriñ xasida yi képp ku nekk na la doy walis ngay am sëriñ wajaxlu muxniyan anil mu rabbi wajaxlu daafiyan bala wal umma dunya wa oxra am jamiu umma na def sama xasida yi ñuy ñuy lañ ñuy jañ balaa nga xam ne soo dee jàng xasida musiba ak balaa yi nga xam ne suñu borom daf koy nattoo jaamam ñu suñu borom def la ciy musal waaye daa fi xam balaa dunya wa uxra am jamiil umma xasida mooy loo xamante ne day jàng balaa ci mboolem xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon liggéeyte xasida yi njëriñ lu ñuy def yemale wuñ ko rek ci ñiy jàng xasida yemale wuñ ko rek ci murid yi waaye mboolem xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku ci rek soo ko xamee soo ko yëg soo ko xamee soo ko amul xasida yi ñu ngi def njëriñ ci yow wajhanhu dafi'al umma dunya wa ukhra am jamia إنك يا وهاب عفاقا المنى وزور داء بأبي ذبابة وغر لي الخير ولفتح بابا وصغر داء لأبي قبيدة وكف أني حلنا وكيدا وصغر داء لأبي خزيمة وأرني خير الورى وصغر داء لأبي خزامة سيرين كوبا رضي الله عنه خمد وني ليعلم فتنة القراء كل من تعلق بي أنني توجهت إلى الله تبارك وتعالى وهب لي الإخلاص والأمانة بتواليك تكون فيها منافع المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة nee na képp koo xamante ne ni da nga aji ci man Serigne Touba na nga xam ne jublu naa sama borom subhanahu wa taala ci taalif ay xasida yoo xam ne dana nekk ci biir xasida yooyu njëriñal jullit ñu góor ñëpp ak njëriñal jullit ñu jigéen ñëpp àdduna ak àllaaxira kon ndike xasida yi mboolem loo xam ne jullit bi ñu koy yittewoo ci njëriñ moo xam àdduna ak àllaaxira Sëriñ Tuubaa nee na faggul nañu ko ci suñu borom defal ko ci xasida yi kon kay euh, nañu sax ci xes yi te xam ne lépp lu ñu wër suñu def na ko ci xasida yi kon yal nañu yàlla saxal ci xasida yi ñu di leen jàng bu baax a baax baax te di ko sellal waaye di ko def rek di ci jublu ak jàmm yàlla liggéeyal ci sëñ Tuubaa sàkku ci ngërëmal suñu borom euh, su ko defee rek kon lépp luñ ciy séntu rek suñu boroom subhanahu wa taala mën nañu ko ci defal ci barke xasida yi na xasida yi ñoo toll noonu kon ñoo ngi tuubal ñëpp di jégalu ñëpp ci lépp loo xamante ni rek luy nuru yàq la wala njumtam ngeen jégal ñu ko bu baax nga xam ne suñu gàtt àddiyo la lu ci jub nag suñu borom la subhanahu wa taala ci ndimbalam tawfeex Sëriñ Tuubaa eh, yàlla nañu yàlla defal kon dégg topp ci barke Sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf أعلى وجل مناجاتك فيها أحلى عندي دواما وتشغل أعلى ولأبي مرشد تكسر مدى أين لدم منك وللتب مددا وجل نهاري كيوم العيد في أبد والتمسني مفقودي ولأبي الحارس صغر داتا وبيبشر كل من والاتا جلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لوثابي وهب لي